ay jib sàmm kuy wàll yàlla da ngay daal mbaa ñu daal la seka seka Cheikh Ngor Mbar yaay su guddee wax ma fooy fanaan ñun Ngor la ñu ñu tooy fii fekk baax cosaan yi fi ñoom mam bàyyi woon cosaan ay waay kuy doonu maa samba jee waaw woon the yaa baax yaa baax. lay lay la laa njëriñ gi jor yaa baax yaa baax. champion la wol ma xeeru ngor champion la waa sama gaay loxo yaa ngi nii waaw bàyyi waa xeer we ngoog xeer wi loolu dëgg la jàllee

Senghor waaw maa ngi delloo ziar di wax a aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant suma moo Maolana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu di ñaan yàlla yokk ay leeram taas ñu si barkeem maa ngi nuyu waa dëkk bi yëpp Ngor gi yëpp maa ngi leen nuyu. ngay xale di espoir fii ci Ngor ci làmb jëm si combat samedi ñu ñëw gis tey say mbokk yëpp kenn say magu mbër ñëw même ñi nga dëkkandool sax ci gox bi muy ñoom Malick ñaa ay gi Euh, euh, caatu Yoff ak ñoom ñëpp loolu en tant que xale loolu lu muy def si yow. waaw sant yàlla di lañ ko gërëmee ñoom it parce que dañoo baax rek suñuy grand frère lañ bi combat bi taxawee ba léegi Malick ñaan nelawul xam nga mu ngi bàyyi di ñëw samay entraînement di ma conseil jën tamit waxi noppi xam ñoom caatu Yoff suñuy dëkkandoo lañ. lamba du neex ba ngorax Yoff bëri seen biir kon ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi geste bi lañ def rek parce que lii moo leen war daal. maa ngi di sant bu baax si teewaay bi ñoom mbëri yoofu yëpp ñi teewul tey maa ngi di comprendre di sant ñëpp waaw maa ngi di sant wér foo toll fi mu nekk nii sa combat ay quelques jours ci des est ce que pare nga actuellement nii pour jàmmaarloo ak Boy Yeumbeul waaw xam nga wax ju bëri feesalul biir man xale bu tuuti laa ku ma xool daaw xool ma ren di nga xam ndax pare naa wala parew ma ndax maa ngi entraîné wax ju bëri la boo sumee ñoo xam si dara boo fi nekk di dara wax ju bëri bés ba bu ñu sumee koo koo doole yaa mais xeeru ngor bu ñu bàyyee xel ci boo yëmbal nee na du la may dara foo taxaw mu fekk la fa ci ci xeex wala ci bëre lan ngay wax ak waa ngor ak ñi lay xaar samedi. waaw moom moom bu neexee mu wax lu ko neex parce que amaana am na lu mu yaakaar ba wax loolu mais man tout temps que laa damaa liggéey ba yegg si fii ay caaxaan andiwu ma fi te di nelaw tamit andiwu ma fi kon du ma liggéey ba toll fii boo yëmbal di ma yaakaar dara si li may liggéey waa ngor dañ yaakaar fukki penc yeeg ñaari lébu yi dañ dafa am sas bu nekk si man waa Ngor gépp gisoo leen ñëpp a génn xale yeef mag ñeen ndaw ñu ñëpp lii rek sas la si man sas ni dool yi may bëre drapeau boo xamante ne ki ko ki ñu ko tuddee sama ndijaay la kon sama bakken laa si teg nga xam loolu sama bakken laa si teg damay dee rek mais damay am ndam incha allah waaw gis nañu face à face bi biir Ngor la bu ñu xoolee booy xeeru ngor dafay ëpp doole booy yëmbal mais nee nañ làmb ji Demba Diop la loolu ñu leen teg korog Ibamar loolu ñu leen teg korog dañ koy waajalaat pour jëm Ibamar ndax korog seen biir kër lan la fekk buñ ko jàppee ci gàttal te nee nga sa nijaay lañ tuddee drapeau bi ndax loolu du diis ci yow waaw ñoom teewuñu kon amuñu dara lu leen di wax ci loolu waaw amaana mënoon nañ ñëw rafetal ko parce que dañu fay fay ko man bu ñu tëggoon signature yi biir këram barki alxuraan damay dem parce que gëm-gëm bi ma koy daan donc aw ma may xel ñaar si lool noonu Iba Mar la wala Iba man Iba miin na ma daf may muslu stade Iba Mar daf may muslu su ma fa duggee si fecc maa koy neexal si bëre maa koy neexal si xeex maa koy neexal te daan maa koy def galaay mais bu ma la laajee Xeeru Ngor. xam nga wax nga sa bopp. waaw nit ku nekk sa bopp nga xam. mais est-ce que ki ngay bëreel xam nga ko parce que adversaire nga am de. waaw am na lu ma xam si moom ndax nit kenn mënu koo xam ba jeexal ko. am na lu ñu xam si moom si làmb si sànni ay quelques combats am. amaana tamit ñun li ñu si daanee quelques combats moom noonu si daan suñu quelques combats mais quelques combats yi ñu si daan noonu am na lu ñu si def loo xamante ne nañ ne bu bés ba bu ñëwee li ñu dañuy may ndam facilement waaw parce ay tout tànk te entraîné nañ 4 mois donc waruñu fi ñëw ay boo yëmbal si benn une minute deux minutes mu ñuy taadeel dañ koy jël falaxe ko dox suñu dox mais su ma la laajee falaxe nga wax falaxe moom loo mën lay doon xam naa ne mais soo ko xoolee ne nga xool nga ay quelques combats techniquement si côté bëri technicité. waaw soo ko xoolee si qualité bëri yéen ñaar kan moo ko bëri. champion la ndax bëri naa ñoo xamante ne bëriwu ma ñoom moo ma jiitu si làmb moo ma ëpp ay sama liggéey moo ma indi ba si moom ay caaxaan andiwu ma si moom damaa daan ay champion ba ñëw si moom donc du moom laay xel ñaar. ci bëri ñëw ko de ci bëri. qualité bëri. moom laay wax champion yi ma daan ñoo ko daa ko bëre boo yëmbal su dee mën ma ko daan bay boo ma tekki sama ngemb. ñaar ku dàq bëri billaahi laay wadde maa moom bu ñu tegaloon géewal ñu billaahi mbappat bëri simple ma am 10 du am benn. foo teg loolu. dama ko daa ko bëri. xeeru nekk di wax say rak. say mag say dëkkandoo di la yuuxu ndax xam nga ni ñii samedi incha allah ca kaw la ñuy yem yaay wàcc suuf te booy yëmbal Babacar wax na la ko bàyyil xel ni ki ngay bëreel mbërëntaan la sañ-sañ bi foo ba jëlee ba mel ni ku xeet ki ngay bëreel non xew ma ko jox naa ko cër parce sama adversaire la respecté naa ko su ma ko respecté wul woon du ma dagg sama yitte dem di entraîné di dem di ñaanlu naa ko ba fii cër yem mais dari tamit Babacar mii fekk na ma Bambey ma ne ba nii seen gémmañ ma bàcceeraas favori lañ ko joxoon si bëre dama koo bëriloo ba muy yuut kon du booy yëmbal laay xalaat ci kedo bëre moom lay dépendre ay lebu lañu lañu ay lebu lañu lañu mbasa mbasa mbasa mbasa mbasa mbasa mbasa mbasa booy yëmbal nee nañ ko ñun duñ firi delloo amul léegi galaay dégg nga li mu wax nee na moo ëpp doole moo dàq bëri te boo yëmbal du ko téye ñun nag xam nañu boo yëmbal xam nañu la li ci des moom wàllu teen la ca bind ba lay yem rek bu samdee bu soobee suñu borom dinañ xool fan la wane bu njëkk ay bëgg Babacar li ma koy wax mooy du gaal a koy gunge du ay joow lancé message bu am solo ngor wakaam yoof na autorité yëpp génn jàppale ñu parce que lii bésu lébuy la bésu waa tànk la ngor wakaam yoof na ñëw ñoom ñëpp ñëw jàpp si ñu ngi siy jàpp waaye lu ñu si jàpp doyul ndax combat dafa diis sama rak sama doomu ndey fëgala bu ngor daf siy bëre ñaari doomu ngor xam nga dañ siy bëre te loolu noonu dafa doon événement si biir ngor ñëpp di ko waajal donc nañu autorité jàppale foog noonu. waaw fële bu war a wax. waaw dañ koy jeex bi leen dëgg xale la bii mooy premier muy dugg ci làmb di dëgg ba ma li avec frappe lan ngeen ko mën a jàppalee ci samedi ci côté mobilisation moom côté production. waaw xanaa boo yëmbal mais man li ma war loo wax petit def def naa ko ndax li ma war a jënd see billet yëpp naa ko jënd naa quatre bolok xam nga kon ragaluma fu ma jëm te damay dolli waat yeneen ñaar incha allahu rabbi kon wàllu mobilisation aw ma si xel ñaar moom laay soññ parce que ay tout tànk lañ dafa am am fu ñu ñëw ba yegg si fii tey promoteur bi wóoluñ joñu xaalisam donc dañu war a wane loo xam te ne bu fi jógee gën a soxaleku parce que day door a yegg si xama di wax ne nag bu gars parce que tout tànk la mu ngi door a mais di wax ne tamit benn message maire Ngor Amadou Gueye Ati li war ci combat bi yëpp mu ngi koy def sama papa Karim Ndiaye li war ci combat bi yëpp mu ngi koy def sama papa Boris li war ci combat bi mu ngi koy def borom suma assistance muy suma ndiyaay docteur Niang moom li ma defal mënu ma koo wax en tout cas Samba respectable euh, politique fii si Ngor ah moto bi li mu ma defar ma koo wax mais sama grand Malick Niang encore une fois li mu ma defar ma koo wax daa dafa dagg ay yitteem nekk si entraînement yi di ma jàppale xeeru sama turandoo li mu ma defal mënu ma koo wax coach yi père Ibou sama ndijaay la père Sindooy xam nga ñoom préfet xam nga non damay sama ndijaay jaraaf Saliou Samba chef de village sama doom la kooku sama doomu la maa ngi koy wax ne bés yi bésam la di wax waa Ngor nañu jàppale ñu ne doomu Ngor lañ te bu soobee yàlla 2 yi gaaw ñu toog di xoole. incha allah incha allah.